saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa bàcc seeraas ma lamb fàtte mu jàpp ne dafa bokk ci lamb dañ ko war a boolewaat ci lamb moom bàcc seeraas la sunu lamb xëy fësal ca xët wu njëkk ba mu fësal ay kàddoom on m'a abandonné loolee mooy ay kàddoom nëbbu ca dara ba sunu lamb déggee li ni mel na cri de détresse la ko tuddee moom bàcc seeraas xam le la ko naqari ca journal sunu lamb mbooleem ñi jàpp ne bàcc seeraas bàyyi na lamb bàcc seeraas retraite waajaguma ko bu ma gisee promoteur bu bëgg sama combat danaa ko bëreel ñàkk combat gi ma ñàkk combat moo tax ñu bëgg maa fàtte waaye bàyyiwu ma làmb da ngay xool mbër yi ma bokkal génération yépp fàtte nanu leen génn nanu leen làmb yi da ngay xool ku ci mel ni Zos ku ci mel ni Issa Pouye ñun suñuy jamono ku ciy bëre da nga gis mbooloo da nga gis bëre waaye léegi nouvelle génération bi yàq nanu làmb ji ba mu yàqu rarement ngay gis gone ku ci mën a feesale saat da xool arène nationale ba ñu ko fa sampee ba léegi ko feesal mel nam booy ñaa deux gis mu defalu fa kenn defagul xam nga ne fi mu toll ni amateur yépp dañoo soxla sama combat namm nañ ma nañ sama génération nomination rax ca dolli moom Bathie Seras ne prince sax contacté woon na ma sama diggante ak Jokkel gannaaw bi ko Maama Lamine daanee dañoo bëggoon a relancer ñu jàpp ne Bathie Seras ñeexu ñeppe la nañ ko ko jox man aw boobu problème naroon naa koo jël waaye kase bañ ma proposé moo tuuti moom prince kase bi ma proposé bu ma ci passé dem ci signature de contrat yi mu jeex tàkk man aw problème boobu buñ ma fayee lu ko jaaduma bëre bu dul Jokkel ci bëgg ma may la chance ñëwal li ma naqari rek mooy dañ maa bëgg a abandonné te du yoon booy fay ne ca tonn ne ko leneen la ñu abandonné kay mooy entraînement yi jamono ji jàngoro ji ñuy wax coronavirus tax na mbër yépp bàyyi seeni entraînement kenn dematul école kenn dematul salle ñépp a ngi ne xumm seeni biiri kër kenn yëngoot waaye man booy fay am naa beneen plan d'entraînement mooy guddi gi lay entraîné salle de musculation yi tëj nañ waaye maa ngi sama kër di entraîné ak samay décision bi nga xam ne CNG jël na ko arbitre yi mérito nañ leneen lu dul ay sanction radiation bu Sitor Ndour du dëgg du yoon Paul Marie Gueye Diouf arbitre de grade régional nekk foofee ca CNG ci boppam dafa jalgati teg ñoom règlement généraux yooyu ñuy sukkandiku bay aj nit ñi article 44 ba dafa xam le ni membre du CNG passible de sanction doit être entendu képp ku bokk ci CNG ñu war laa aj dañ laa war a ba noppi ka la war mooy la commission kenn woowut leen aj nañ ñaq tey relikaam aj Alioune Seye 2 te règlement bi li mu wax mooy dañ leen a waroon a woo déglu leen ba noppi dama bëgg ñu xam ne CNG fii mu teg tànkam du foofu bu ñu jàllee ca Baara la journal ba xam le mooy gannaaw bu mu jógee ci defetam ca Jet ba léegi mu ngay dugg ci troisième saison blanche gannaaw ba ko Jet Li daanee le 25 juin 2018 foofee ci stadium Iba Mar ba léegi Baara